ci suñuy yëngu ak yëngal ci lañu suñu naataangoo bi yi nekk France nga xam ne moo ñoo fa gën a doon eh, eh, organisation bu fa gën a yàgg a gën fa ëpp doole muy fédération des conseils de parents d'élèves FCPE mu ràññee ñu ci Afrique invité ñu ci congrès am soixante-dixième congrès yàlla dogal président ànd ak man ak keneen muy Amidou Sow bu ñu bu ñu demee devant plus de cinq 500 délégués ku ci nekk jël na fa kàddu mais li ñu mën a jàpp ci kàddu yi mooy président unipes dafa def plaidoyer pour que nit ñi fédération yi nekk ci parent d'élèves yi nekk ci àdduna bi comme ni ko chef d'état yi defee ñu booloo ndax mbooloo mooy doole. lu mel noonu buñ ko naree organiser un congrès international. moyen UNAPES mënut ko kon mbir mi mbiru Sénégal la c'est l'affaire de tout un Sénégalais en commençant par le chef de l'État parce que honneur u Sénégal la mbir mi bu réussir dafa am yeneen opportunité yoo xam ne Sénégal mën na ko cee tiire ndax turu Sénégal dana gën a fës xéewal la xéewal bu mel noonu nag doo am ñoo xamante ni bi ñuy dem paasaloo leen joxo leen ñu naan joxe leen ñu lekk séjour bañ fa def xamoon nuñ ko def ñu ñefe ba am loo xamante ni ay teraanga yu waroo indi Sénégal teraanga yooyu ay moyens xañ leen ko ndax kat bu réussir organisation bi gàcce Sénégal lay doon du gàcce UNAPES de gàcce Sénégal lay doon pour réussir organisation bi nag fu ngeen yaakaar ne war nañ fa mën a yaakaar te bu politique xewee ñu génne ay billets di baatare bind nañ yóbbu waaye amul ci pratiquement ñaar wala ñett daal ñoo ñooñu ci tontu ñu ngi gërëm nag di sant bu baax ministère éducation